problème yi nga xamné tay secteur industrie euh, mi ngi koy euh, jànkonteel ñu man ci waxtaan man ci trouver ay ay saafara mais également mën tek ay ay stratégie industrielle yo xamné dana mën permettre tey euh, ñu mën a soqali industrie yi am ay capitaine d' industrie ba Sénégal mën dem dem dem dem dem dem kanam tay son excellence le président Macky Sall yéen ñëpp xam ngeen ne tey dafa bëgg ay industriel yo xamné dañuy dañuy valoriser suñu ressources nationales industrie yoo xam ne dañuy créer valeur ajoutée di euh, di créer emploi euh, tey bu ngeen xoolee tey euh, am na benn projet bu nekk ci le plan Sénégal émergent muy projet écosystème de de construction bu ngeen xoolee tey composante ci nekk yëpp pratiquement mat na benn peut-être moo ci des ciment bi mi ngi fi mat na sëkk ñu ngi koy produire fer à béton bi mi ngi fi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy produire ba mat ba mat sëkk yi mi ngi fi également donc li des mooy sanitaire yi te am na ay yoo xam ne pare nañ euh, pour def ko ci euh, ci euh, délai bu néew ñu def sanitaire yooyu bu ko defee écosystème de construction boobu ñu mën koo boucler. tey nag dañu ñëw fii di waxtaan gannaaw bi nga xam ne rendre naa compte son excellence le président Macky Sall conseil des ministres le 3 juin problème yi nga xam ne ñu nekk ci acier bi ñu ngi koy jànkonteel mu ne ñu woote tey waxtaan ci mbirum problème yi nga xam ne tey. Euh, euh, euh, industrie yu nekk ci acier bi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jànkonteel tey bu nga xoolee xam nañ ne nombre bu bëri la mat nañ pratiquement 133 entreprises nga xam ne 80 pour cent yi presque ay ay ay petites et moyennes industrie la boo xoolee investissement yi ñu def lourd na trop milliards di indi pratiquement depuis 2018 boo xoolee li ñu dugal ci économie bi mën na pratiquement 220 milliards tey ñu ngi créer 10 000 emplois di créer pratique direct di créer 600 000 emplois indirects. Euh, donc nous sommes c'est des capitaines d'industrie Nous avons yo xamné war leena mëna taxaw bu production également nous produisons entre 450 000 tonnes ak 500 000 tonnes te bo xolé tay demande nationale bi 400 000 tonnes donc nous ñom satisfaire le marché local mais gis nañ né ñi ngi jankonté ak importation euh, massive hein, de, fer à béton bi euh, ak lu également réexportation fictive les déclarations Euh, euh, à Soudan mais également di ak problème électricité ak problème yu bëree bëri yoo xam tey ñi ngi koy jonkante ñi ngi koy jànkonteel yoo xam dañ cee war a waxtaan tey turbe ci saafara pour mën a protéger suñu industrie yi ba nga xam ne vraiment ñu mën a compétir au niveau international au niveau de la sous-région au niveau international mën euh, bu baax a baax a baax donc tey may am yaakaar ne ndaje mii ñuy ndaje tey dinañ ci trouver ci problème yi nga xam ne secteur acier mi ngi koy jànkonteel di ko dund ñu mën koo saafara mën a génne document boo xam ne tey ñun ñëpp danañ ci ànd ñu man koo appliquer mu nekk njariñu secteur acier bi nekk njariñu Sénégal